takk der yi dal dinañuy dakkal caravane de la liberté bu Ousmane Sonko wóotal si Ndakaaru ginnaaw nag ba mu jógee ca Kolda foofee nga xam ne ay fitna juddu woon na ci diggante way takk der yi ak yi ñoñam usmaan Sonko moom itam sànni nañu ko ay gaz lacrymogène ci xeex yooyee sax nag benn waxambaane bu am fanweeri at ak juróom-ñaar fat nañu ko ñu ki àjjuma ji. lu ni mel nag Abdou Karim Fofana ñaawlu na ko bu baax a baax waaye moom porte parole bu gouvernement bi jàpp na ne Ousmane Sonko dafay tooñ ci noonu sax ministre bi ñu dénk wàll biir réew mi dal dinay bind ab bataaxal ngir dikk ci anam yi nga xamante ne xale bu góor boobee ci la ñàkkee bakkanam fële ca Kolda boobule document tamit di dikk ci ana naka la faatoo di xamle ne dafa faatu ginnaaw ba ñu ko jamee ci biir bi. waaye nag document bi dikkul benn yoon ci sox yooyu ana fan la bàyyeekoo Antoine Félix Diome moom itam dal dinay xamle ne caravane yi sax dana ko jàppee comme cortège te dafay aaju ci këpp koo xam ne bëgg nga ko amal nga dal di yëglu ni ko article 86 du code pénal santaane